Rewmi 24 TV dal ak jàmm ci xibar Tange tanja mom mi di Tange tanja ñu gëj ko dégg gëj ko gis mom mi di Tange tanja ñu xamne rek bayilul dara Ousmane Sonko Ousmane Sonko rek lay baña a dégg moom lay baña gis mom mi di Tange tanja nak yëkëti ay révélation yëkëti ay cadeau yu doy doy waar rek daal koy ci ci ndodum ki nga xamne rek moy Serigne am ci nabax mi nga xamne rek rek fay génnoon fan yi rek di wax Ousmane Sonko ay wax yo xamne rek dëgg gu wër keng la mom Tange tanja mi nak génn na nak daal di rek dal ci kaw ki nga xamne rek moy Serigne Abdou euh, doom dom Serigne euh, wax mi mom mi di Tange Tandian rek amul lum ko waxul yak nako lu melni xame wax jojje rek nga xamne ne Tange Tandian yëkkati na rek tek ko ci seigne Abdou Aziz da bax ñun mënuñu cee sax yek ci wat ndax cardu yi ñaaw rek lan mo waral Tange Tandian am bi fi deug ta bu doon ne ku bokk Pastef lu rek jamono yi patam patame nañ ko rek dal di koy yobbu ci yoon kon bokk mi nga ko Tange Tandian daal bu ginnaaw rek ba mu toogee diir bu yag kenn deggatu ko kenn gisatu ko ñu yaakaar rek bayina na révélation yooyu nga xamne mo moo doon teg dootu Ousmane Sonko waaye gis nañu rek biñu ñu gisee sëñ Abdou Aziz da bax genn rek seigne abdou habib da bax mi rek lamu wax rek Tange Tandian taw wax na ko wax joo xam ne rek weñ bu ca dal dee moom mii di Serigne Abib da baax kon Tanzania wax na ko bépp wax boo xamee ne rek kenn ñemewu koo tudd fi mu toll nii kon foofu la Sénégal toll.